bala ñoo dem ci Ahmed Khalifa Niass. mosal ñu tuuti ci Omar ibn Abdul euh, wallaahi ndeysaan ku maandu kàngoog man damay wax ne. Mhm. dañu waroon a supprimer euh, mhm. ak la prince ñu samp Abdul Aziz. Euh, mhm. Abdullah Omar ibn Abdul Aziz. parce que Machiavel bi ñuy jàngal nga xam ne prise képp ku bëgg a nekk président danañ la jox la prince. nga di ko liir ndax dafa jàngale nu ñuy gouverner te Machiavel ab. saay saay mhm. ndax dafa jàngale ci gouverne noo xam ne mhm. dawul sàcc dawul fen dawul wor dawul rey nit bu ko laajee dawul tuur deret bu ko laajee moom nee na nguur lu mu laaj da koy def cest à lii ku ko jàng nekk ci gouvernant pour nga rey nit mbaa nga sàcc alal du dara ci yow mhm. Omar bun Abdul Aziz Chouaïb bu dañ ko dénk benn dëkk bu tudd Misra bi muy ñëw ci dëkk ba dëkk bi dafa ndóol deux ans la jiite dëkk ba kenn amul koy jox asaka ci Misra ñaari at. est que waxuma cinq ans de. Mhm. fii ngay fal nit cinquant ans falaat ko cinq mu naan baal leen moom ma defaat beneen pour ma mottali. deux la yore dëkk ba. Mhm. dëkk bi kuy joxe azaka dangay ngay takki gileem dem seeti foo joxe ji azaka parce que ab faqiir amatul ci dëkk bi ndax maandu teem mhm. te xam nga euh, Erdogan waxoon na lu mel noonu bi ñu ko laajee yow noo def ba réussite alal ji nga réussite ba financé mu ne ñi doon sàcc laa téye seen loxo kenn sàccatu mais Sénégal bii li ñu fiy sàcc ci ay milliards ku téye woon seen loxo rek réew mi dem dëgg la Omar Boun Abdul Aziz nag bunt yooyu la njëkk a tëj mhm. keroog bi ñu ko falee dafa dajale famille wam yépp mhm. ne leen dëkk bi sas nañ ñu de mhm. du ñu gën a gore dénk na ñu li ñëpp bokk dama bëgg train de vie bi ñu amoon ñu dindi ko yëre yu rafet yi mu amoon Omar Boun Abdul Aziz sañsekat la woon ñëpp daan wax ne dafa bëgg àddina mu dajale yëreem yépp mayee benn tenue ne rus naa sañse ci kanamu ñi ko yaakaar di xiif di mar moom muy sañse seen kanam di jaab ak a dikk xam kooku du dawal ay oto un milliard dëgg la woo fami wam soxna yi jigéenam yi ne leen nag xanjaw xanjaw jeeg takkaay yeeg yëre yu cher yi da ngeen koy arrêté parce que ñii nu yaakaar dañoo sonn te foog ñu satisfaire leen seen col gi na wàññeeku dundin wi na wàññeeku wa illaa ku ma ci gis ñu fal la nga dund dundiin wu ëpp nii nga yore danaa la auditer nangu alal ji danaa ko def ci li ñëpp bokk ñu moom mhm. loolu la ñuy xaw a méngale tuuti cré yi te bokkuñu dinañ ci ñëwaat ci leeral gi bi mu commencé def noonu teneem bi bu tilimee guddi la koy soxna si di fóot mhm. su xëyee solaat ko maanduteem gi mu tëral nee nañu dañoo dem ba gis ni bëy ak till dañ leen di fekk ci benn àll ñoom ñaar ñu sëgg di lekk te kenn du fàdd sa moroom est que bi ñu laajee sàmm bi lii lan la mu ne ki jiite réew mi maandu teem moo wàcc ci mbindeefu yàlla yi moo lay won ne aw nit boo leen jiitee say jikko ak say melo day wàcc ci ñoom soo baaxee da nga leen baaxal boo safaanoo safaan googu dina wàcc ci ñoom jeexantalu Omar bin Abdul Aziz dafa wàcc ci nit ñi wàcc ci bàyyi may mm-hmm. benn gouverneur woo ko ne ko dëkk bi nga ma dénk mm-hmm. insécurité bi def fi bari ma bëggoon benn budget rek pour ma financer wàllu sécurité mën ne ko dërëm du ma la ko jox. ñoŋalal dëkk bi ci maandute te nga tàmbalee ko sa bopp. est-ce da nga sant ña fa nekk ñu maandu ku tooñ teg ko ci yoon. nga jël ki ñu tooñ nga delloo ko àqam ki tooñ nga sanctionné ko boo ko defee diir bu néew dëkk ba cocc lay def te bi mu ko defee dëkk ba cocc la def c'est-à-dire ay jikko mooy. yor da nga yar sa peuple daal. te loolu deux ans la ko def. Mhm. mu réussite ko ñu ne cinq ans mhm. kon ma damay ñaan ñu roy Omar ibn Abdul Aziz. Mhm. lamp yi mu yoroon këram lamp pétrole yi. bu liggéeyee ci nguur gi ba li muy liggéey jeex boo ko seet see di ganam. ngeen waxtaan ba dugg ci famille mu ne xaar xaar nga xaar ko mu fay lamp bi mu yoroon taal lampam ne la ah léegi ñu ngi ci sunu soxla bopp te lii jullit yee ko moom. d'accord mënuñ ko utiliser ci suñu bopp sooy bu kuy daw di taal courant wu li ñëpp bokk ngir sa soxla bopp xam nga kooku du lekk alalu askan. d'accord ñooñu la gouvernant yi war a roy. d'accord kooku mooy royukaay bu mag bi. macha allah boo ne woon yonent dañ naan bon kooku yonent la kenn mënu ko rey mooy Omar ibn Abdul Aziz. Mhm. du yonent du saxaaba toppul sax ci saxaaba yi. wallaay wallaay. Eh, daanaka yonent magee na ko lu ëpp un siècle. waaw kon kon na koo roy.